Samb génn ci nuage. Ah, nañ ñëw ci les nuances de Mamy Samb génn leen ci. waaw xam nga ko. Hmm. bismillah. tey ci altine gi. aram yaa yaru kay. loolu wax dëgg yàlla même boo amee ko sax du feeñ de. <laughs> am nga self contrôle. de aram li nga amee self contrôle li jaaxal na ma. Ah. tubaabee self contrôle kan kii ah kii kii day saa nekk nii kontaan na de bëgg na ba pare rek delloo si leen seen xel yi ngeen concentré wu libération yéenekaay yi lay ubbee tey ci suba gi mu ni la filiale de Gré ay man mi lu ma dal maanaam la filiale de Gré la filiale de la multinationale pharmaceutique dans les nas du fisc mami concentre-toi Novartis Sénégal mu ne tombe pour quatre mille deux cent dix milliards administration fiscale bi dafa émettre dix titres de perception après benn contrôle boo xam ne jot na fa am Novartis dama ngay contesté ñaari partie devant le tribunal tey lañu fay taxaw audience ci diggante Souma ak DGID dañu ko renvoyé ba juróom-ñaari fan ci weeru juin mu ne ginnaaw redressement wu 4 milliards yi nga xamante ne notifié nañ ko société turque boobee ginnaaw gi ñu ñëw ci ancien directeur de la solde mi nga xamante ne moom il va plus loin que la cour des bokk na ci li mu révélé mu ne président Macky Sall ay ministres ay officiers ay médecins ay enseignants ñoom ñëpp ils ont été bénéficiaires de double paiement ou de paiement répété le même mois yaa may dégg wala déggoo ma mm-hmm. mu ne j'ai émis des ordres de recettes sans exception et ils ont tous remboursé jusqu'au moindre centime lépp loo xam ne jëloon nañ ko delloo nañ ko ca mu ne le logiciel de la solde avait été attaqué et saboté mu ne il y avait une mafia autour du paiement des rappels loolu yëpp ci ay révélation yoo xamante ne ak yéenekaay bi di libération moom la xëyee tey journée nationale set setal bu sunub réew baax seen koñ set na wecc Pape sa koñ set na nabu wa ba Pikine set na euh, sama koñ je pense mercredi la ñuy def aram yéen nag incha allah set setal ngeen avec le maire euh, Cheikh Diop ah des na rek ah, dafa desee set des na dinañ ci ñëw elle va nous faire le bilan incha ah moom mooy def bilan bi ah man de sama koñ wax dëgg yàlla set na de na. seet na de yow de arab bi daal ko ci bilan. sa ko ak yow génnoon nga bale. ma bu waxoon. Euh, ma ñëw ma maa <laughs> ñëw naa la ko. ginnaaw libération <laughs> euh, yéen kaay bii la soleil waa tamit yéen kaay bi mu ni ku ma bëgg a enfoncé des ci set setal gi rek leen du génn mu ne lancement journée nationale set setal baa ngi <laughs> nañ set setal suñu réew mi setal minim réew du xam ngeen way boobu wayu kii set setal mi ci réew mi setal minim réew set setal mi ci réew mi setal su ma nekkoon waykat waykat bu mën a way laay est-ce que du Kiné Lam ah Kiné Lam wala kan dimbali ma eh. xale yi Sénégal nene set setal mi ci réew mi setal mi dimbali leen ma woykat bi du daaro mbayam Kiné Lam en en tout cas foofu la daal ci ensemble lyrique traditionnel bi kenn la ci ñoom laajal ma internautes yi nañ ko xam président bi dafa insister sur la pérennisation mu ne lii nanu ko wéyal l'éternité appartient à Dieu mais pérennisation peut bien appartenir à l'humain bu nu ko commencé nii aram nanu ko yeggali ci ensemble territoire national bi nag waxuñu aram nga yem sa bopp koñ kese dañ ne mu nekk Ndakaar Thiès Louga Mbour Saint-Louis Ziguinchor ak fépp fu waay manti nekk nuy woyal loolu population yi di génn massivement wuyu ci appelu président de la république bi nga xamante ne mobilisation au quotidien moom la bëgg premier ministre Ousmane Sonko nee na nous sommes maîtres de notre propre environnement ba pare l'armée en première ligne dans certaines localité jub jubal jubbanti rek. armée moom fu mu nekk da ngay jub xoj barke sëñ Bamba. armée moom man seen seen seen daara seen daara laa duggul ah lii ba jàmm la direct ci news mu ne l'homme d'affaires dans de beaux draps kooku kan la homme d'affaires boobu kan la question devinette homme d'affaires boobu kooku kan la anamu homme d'affaires bi kan ci nekk dans boo beaux draps moom la ñuy wax temps moom la ñuy waxtaanee nii rey am d'affaires bi. waaye homme d'affaires bi nga xam ne temps dafa nekk ci si te te kii way na ko waa waa waalise kii tam waayal na ko euh, kii Momo Dieng. Ah. waaw waaw kay ah yow toi tu suis en classe. Doro Gueye mii yéen direct news bi dafa sampum laaj mu ne ndax Macky sàll mii dafa lâché Seydi Kalara wala. mu ne ndax homme d'affaires Doro Gaye mii complicité la amoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ak ancien président bii di Macky Sall ak famille am mu ne te si ñoom ñaar seen diggante ratax gi mu ratax mu ne loolu amul benn doute bu ci waay man a am mu ne il y a même ay accointances très poussées mu ne avec le fils du président Macky Sall en l'occurrence Amadou Sall xam nga kon foofu xaritoo am na fa mu ne ci mbiri dossier bii qui lui vaut d'être traîné en justice moom prédécesseur u Diomaye moom la fi tudd muy kan président de la République Macky Sall mu ne ndax Macky Sall mii dafa war a bàyyi acolytam bii mu des ci kaso gi wala justice ne devrait-elle pas convoquer ancien chef d'état bu Sénégal loolu itam laaj la ne ko kaay mbir mi du Doro kese Doro tudd na la ci yow itam mu ne d'autant plus que Doro Gueye dafa déclaré à la face du monde que ex-président bii moo ko confié ay mission secrète aram mission secrète yooyu mission lu mu lekke yéen bi di ko laaj mu ne de toutes les façons Doro Gueye qui n'est pas né de la dernière pluie ba mu juddoo moom Doro at mi mu judd wëndëng tapet ñàkk nekk nandite juddoo ci yaa ngi dégg mu ne te il n'est pas prêt à payer seul les contre-coups de cette affaire foncière bu ko defee waya di pourquoi ci mbir mi ni mel moom Doro rek moo war a payer les pots où sont les accompagnants de Doro les Doritos les Doritas et les Dororités anañ ils sont j'ai dit dans cette affaire là où sont les Doritos les Doritas et les Dororités ils sont où Ngoné Sali pourquoi Doro kese moom moo war a payer les pots cassés et personnalité pourrait être citée quel que soit le niveau de responsabilité mu xóot mbaamu nañ mu sori baam bañ a sori balaa revue bay jeex fàttali ma ma wax la imam ba waxoon nayim na ko jottalil mission yi mu war a dox ci koñ ba nayim na ko jottalee ak coow lu mu jurte jàkka ja fàttali ma ko balaa maa pare revue bi mu ne l'émission secrète selon connu du grand public ñépp dinañ ko xam saisie bu 30 kilos bu cocaïne ca kër Ayib par les douanes sénégalaises contre valeur de 2,4 milliards de francs CFA Direct News dina ko xamal ginnaaw gi ñu ñëw ci beneen ub yéenekaay yor yor bu Serigne Saliou mu ni journée set setal bi premier ministre nee dëkk bi nañu ko tegaat ci yoon yaa ngi dégg président Diomaye mu ne assainissement bi ak propreté lii mbiru kenn ku nekk ci ñun la ku ne danga koo war a def sa sacerdoce mhm. mu ne itam euh, Diomaye Sonko le triomphe du projet moom noonu la ko jàppee ci mandat Diomaye bii mu ne ki tient bien sur deux jambes taxaw na ci ay ñaari tànkam nit ñi naan dafay yank yankul diggante bi am na lu ca ne mu ne tous ñebe muy but buti amu ci diggante bi projet baa ngi dox cool fine nice ginnaaw yor yor ay ca ñu ñëw ci bés bi le jour mobilisation pour journée de déploiement bii mu ne lii c'est le ballet de la république waxuma ballet B A I L D A A I B A L A I du ballet boobu bii comme genre ballet daas xam nga bale bale daas bale boobu la mu ne ndax président dafa woo population bi journée bi nañ ko def seen journée bopp ministre yi mu ne ñu envoyé leen ci région yi PM promettre la lumière sur les événements de juin 2023 bu leen dara jaaxal ngoone lépp lu ci am lu ne PM nee na dinañ ko xam colonel Sankou euh, Sankoun Fati à Sonko mu ne ko volonté louable mu ne ko waaye bul fàtte ne coow li lu muy bari bari amnistie ma nga ca biir ginnaaw gi ñu ñëw ci Euh, beneenub euh, yéenekaay 24 heures ñëw ci lancement journée set setal sunu réew bu samedi bi mu ne bas daal moo décrété la vie zéro déchet te loolu dina neex Ndeye Aram Touré parce que nday Aram bëggul lu tilim bëggul lëndëm nay leer saay nay leer aram bëggul lu leer saay nay set aram bëggul lëndëm ah aram bëggul tilim nay set nay set te bëggoo lu lëndëm kon nay leer saay nay leer arab bëggul lu tëdd moom gaaw gaaw mu tëgg na ma yóbbu ma nay leer nay leer arab bëggul lëndëm nay leer saay nay leer arab bëggul lu tëdd nay leer nay leer woy bii tëgg bu jaxasoo li <laughs> dégg mel sabaru dëmm kenn mës ta gis li yow sa tëgg bi jaxasoo na ni yaa booyam université sur les rails mu ne les sept mesures phares Boas yéenekaay bi wax na ca mbiri cité Touba Renaissance mu ne euh, SCI euh, la promobilière mu ne ne peut pas assurer un service après-vente 12 ans après la reception des travaux ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen à lire ci yéenekaay bii di 24 heures ginnaaw gi ayca ñu buur dem ci Vox Populi crainte d'une république des juges Alioune Tine nag am na loo xamante ne demande na ko président Diomaye li mu ko demandé mooy bu nu céder à la pression président. mu ne la république des juges n'existe nulle part dans le monde amul fenn fu mu am ci àdduna bi kon nag bu ñu pression yóbbu ba ñu yaakaar ne mën nañu réussir loo xamante ne kenn mosu koo réussir boobu ba tey assise de la justice yi mu ne c'est déjà un grand succès ginnaaw gi sa xarit baa ngi nabu koor Ansoumana Dione na ngi eh, maa ngi koy nuyu bu Ansoo ngi Ansoumana Dione ci célébration journée des malades mentaux bi dafa interpellé le chef de l'État mu ne ci sur les défis d'une meilleure prise en charge naka la ñuy def ba seen prise en charge gën a baax ma koy nuyu bu baax wallaay Ansoumane Dione moom dafa dama defoon ne moom sax kan moom mujjul ne candidat jàllu wala amul woon pare dañ ko aadaa ah, bàyyi dañ ko xeex ku ko xeex yow Ansoumane est bu mu demee ñuy jox ko oto lañ ko joxoon no président ci laa ko gëj dégg mu wax de <laughs> yaa ko ñemee de day gont tontu la de <laughs> waaw moom de wax dëgg yàlla moom ak Ahmed Aïdara yem de ku xëy wax leen balaa ngoon nga dégg sa bopp. <laughs> kenn du Ahmed. man dama gudd laa koy a ah, tontu <laughs> daal moom Pape Ousmane ah, ko waxal jàmm rek ko moom nee na ku bëgg tooñ na ngay laal ko siiw. ne boo ko laalee dootoo ko defati. du <laughs> dëgg les voyagistes privés mu yokk nañu seen baat. Mhm. ndax li nga xamante ne moom la ñuy dund ci wàllu organisation ak bii. ndayaram ne dafa bëgg aji màkk mën a la xaaral tuuti fu mu nekk nii dafa mel ni situation ba am ca Air Sénégal réglé guñ ko de moo tax ñu interpellé le président de la république ak premier ministre ñu ne leen yéen ñaar daw leen gaaw ñoo dimbali ñu ministre euh, El Malick Ndiaye moom dina expliqué wu plutôt c'est expliqué te itam mu ngi joxe ay euh, assurance euh, comme quoi situation bi dinañu génn ci ñu nekk nii balaa yàgg ginnaaw Vox Populi ñu ñëw ci source a mu ne <laughs> boutiquier bii nag moo mën nag kii nag kii nag nabu koor internet yi nag kii nag moo mën nag boutiquier bii dafa dem takk jabar jàmbur def ko ñaareel ah <laughs> waa wii lii ah, ci kan la ma ni waaw est-ce que waaw mu xam ne kooku amul euh, wala kii moo mën nag nag nag mooy xalif général ku li takk kat ñi nekk ci réew mi waaye yow nga yow yow yow nabu koor ngay tàmm yëy yax ba yëy yaxu yëykat mooy li di yëy yax ba yëy yaxu yëykat yow ngay takka takka ba takk jabaru jàmbur ba pare def ko ñaareel nag soit ku jigéen kee waxul dëgg gi walla ba xam ne boutiquier bi am na fit <laughs> ah de moom dee de deux choses l'une rek benn rek moo ci mën a ne mm. boutiquier bi am fit wooyi laa ndaw see ko waxul ne je suis mariée ba njam dem takk ko ñaareel léegi nag lii moom nu mu tudd ci tubaab. bigamie. bigamie la. ku jigéen bu fekkee dafa am ñaari bigamie la. bigamie la bigamie la tudd. ah ndaw si de li mu def réer na de source ah ba jaxase nga sama xel bi mu ne principal enseignement des mille et une propositions de l'union des magistrats du Sénégal adressées au garde des Sceaux dans le cadre des assises de la justice yéen a kaay bi ne ses pleins pouvoirs. et en détail peut-être qu'on y reviendra prochainement à l'AIBD dem fa plus de 30 directeurs exécutifs près de 80 chefs de département ak ay de dingue de malade bi de dingue rek la yam maa ci yokk loolu mu ne des de litres de carburant par tête bopp bu ne ñu jox la ay litres carburant yu dul jeex moo ne Saliou yaa may dégg ay véhicules en de simples chefs de service kese président Bass mu prési fi nga fi ngay bale caaroy du foofu ñu ne nga ñëw fii AIBD ka bale AIBD <laughs> li fi am ni lii de waxuma la bale waaye gis nga li xam nga loo ci war a boole ndabu koor lan a rato ak raclette te booy dem ba nga bokkaale mbuusu omo mm. ak acide eau de javel ak amidon gëm la kafta ak bicarbonate de soude ak camion limon ak kañ yooyu yëpp danga koy soxla foofu gom ah amidor bi dama juum ba xam nga rek dama xër xër ci raxas bi rek tribune mu ne Hajj 2024 <laughs> amateurisme ak couac au décollage de pèlerins 20 millions de pertes par jour moom le voyagiste yi ña ngay jooy Pape Ousmane laissé nañu leen en rade pèlerins yi jaaxle nañu euh, El Malick nag annoncé na ni fin au retard ji tey ci altine gi la de service bi dina génn à partir de mardi beneen bi mooy Alioune Tine woon na Bassirou Diomaye ne ko desserrer la pression fiscale ci entreprise de presse yi yow Alioune loolu moom duñ ko def du dëgg nañ fay euh, bésu setal initié par le président euh, mu ne la république dans la rue la góorgóorlu fu mu nekk nii moom xar xarmee ko yitteel gannaaw bu nu balee ba pare ku ci nekk ngi daw di wuti xar ginnaaw la yéen kaay bi la tribune laas mu ne quoi sur le pèlerinage en faire des pèlerins bu Air Sénégal bii xamee ngeen Ouleye Ouleye Thiam voyagiste privé mu ne nous appelons le chef de l'État à faire un appel d'offres international ci lu jëm ci euh, convoyage pèlerins yi ndax wax dëgg yàlla Air Sénégal demul bay décollé beneen bi mooy succès de la journée nationale bi Ousmane Sonko toj sa mbaari mu naan tës tës promettre na nee na bu ngeen yaakaare ne bale yi ci koñ bi rek la yem ñu ngi nax seen bopp dinaa bale waale état bi passeport diplomatique liste rouge vers la suspension de plus de 100 titres de voyage rapport inspection des services des affaires étrangères et les instructions du premier ministre mission de vérification ak ñeenti proche yoo xamante ne jege nañu lool président de la république Macky Sall ciblé ba xam naa ne moom moom président de la république Macky Sall mi ah kii ancien chef d'état moom fitam warul dal de. pourquoi. ah Macky. waaw lu waaye tudd tudd ko ci. dañoo nekk di def bilan nag. booy daal. épice bu mel ni comme genre thé la sauce boo togg def ci non non plutôt laurier. épice waaw wala kii. ah non parce que boo ko joxee romarin. romarin du dem fépp. Ah, cette la. cette kat la cette épice la. Mhm. waaw cette épice mën naa dem fépp dëgg la. romarin am na yoo xam ne duñ ko togg moom mii comme cette épice lay nuru parce que kii vraiment moom lu tudd tudd ko ci moom daal moom fitam warul dal. moo jiite woon lépp. moo jiite ko taxit. moom kay ba mbaayee jiite ba tey daa mel ni kay moo leen tànn ah ku ne la nga jiite woon it moo la tànn ba ah waaw wallaay moom kay conséquence la mu jiitee ngi du dëgg <laughs> Waré Sarr de fu mu nekk nii nee na euh, euh, de combat à à à lan combat de combat tir à vue j'ai rien compris Waré Sarr Waré en Sarr char en en char de combat la ñu bëgg a wax ok et tir ok elle tire à vue ok là je comprends Euh, euh, parfois billaay yenn titres yi day day compliqué ci la galère sans fin des pèlerins on en a parlé et puis journée set setal également qui fait partie de l'actualité ginnaaw l'observateur ñu ñëw ci point actu bu Penda Ndiaye mu ne remobilisation des troupes bu APR ca Kolda discours de feu bu Abdoulaye Daouda Diallo ak délégation mu ne ana Amadou Ba loolu la intervenant yu bëri doon ko laaj fu Amadou ne Amadou Ba anamu Amadou Ba dañ ko doon laajte Kalidou Sy mii maire bu Medina Yoro laa mu ne lan moo tax ñu ñuy proposé benn candidat mhm. bu noppi ba noppi di ko xeex proposé candidat pare ba noppi di ko xeex bu Boubacar Diallo maire ca Medina Yoro Fula mu ne pourquoi Macky Sall n'appelle pas directement comme à Kaffrine ñii daal seen problème bopp lañ fa doon waxtaanee daal xam naa APR fu mu nekk nii ñoom itam wax dëgg yàlla seen i mbir euh, du neex a lijjanti le quotidien mu ne changement dans les Sonko bale Diomaye bi la na këfët yëngal ko te ginnaaw bu mu ko yëngalee mun ne ko nous allons d'abord balayer la justice lorsque nous aurons fini de balayer vous verrez qui a quoi gis nga si yëngal boobu Aram dama lay nettali benn anecdote benn waay moo ànd ak benn cuksam di doxantu ci parc bi bi muy doxantu ci parc bi Pape Ousmane comme xale bi dafa tubaabee waa ji bëgg koo gondi xam nga rek boo amee genre xale bi mel ni Aram tubaabee duñ lekk forcaaye duñ lekk tagana duñ laal brochet tubaabee quoi tu vois euh, tu vois waa ji ànd ak moom au lieu mu yem ci li mu ànd ak gelam doxantu ca parc ba mu dem romb benn naar boo xamante ne ma nga sol tubéyam xam naa ne mu tuy sëggee woon noonu di góor garab yi tubéy bi dafa xaw a wàcc fii waa ji daal dina gel bi mais regarde-moi ces indigènes là ah comment ils sont sales et dégueulasses là ah! sont vraiment pas propres du tout non mais sa moi de ne le comprends pas du ca yam na ko. kese nag. ndax mu jël baaraam ba ruux waaja naar ba ne cuur bu nga ko ruuxee nag naar bi ne naar bi nekk ruux bi nga ma ruux méttiwu ma mu ne ko mu ne ko xam nga lu ma naqari mun ne mun ne ko yëngal gi nga ko yëngal yëngal gi nga ko yëngal moo ma naqari léegi nag ñaar nga am mu ne ko moccal baa nga dee. <laughs> Ngoné Salim yaa rafet sourire kay ma ne ko yaa jekk sourire kay góor Pape Ousmane day taxawal wax na ko dëgg yow boo ruuxoon rek yem ci est-ce que problème dina mun na ko ruux gi mit ci wu ma mun na ko xamal lu naqari nga nabu mun na mun na ko yëngal gi nga ko yëngal lii moo ma naqari léegi nag ginnaaw yëngal nga ko ba pare mun na ko mun na ko màccal baa nga dee léegi ko mu ne retard d'un vol d'Air Sénégal pour le pèlerinage à la Mecque yéene kaay bi mu ne ngoone lii ay couac la ak gogo waaye yow kii lu ko dal yéen ñaar ñii lan la Aram Touré yow tamit ça va concentré wu leen waaye concentré wu leen mu ne ko ruux bi metti wu ma yëngal gii nga ko yëngal moo ma naq yëngal gii nga ko yëngal loolu moo ma naqari mu ne mu ne ko kam yëngal nga ko nag ba pare moccal baa nga dee ah xanaa match rek du dëgg de ku wax a gogo gogo gogo bu ngeen moytuwulee xale yi jigéen ñi dinañ leen dugal ci lu ne les pèlerins dans le désarroi jaaxle nañu ay passagers encore laissés ak pied par Air Sénégal ay voyagistes privés yu déversé seen ay collège sur la compagnie ba pare di interpeller yëngal gi nga ko yëngal le ministre tente également de sauver la face ci journée nationale de set setal des retaan ca joli seen sourire yi rafet na nag Sonko dafa solder encore ses comptes mu ne dinañu assainir dëkk bi sur le plan environnemental mu ne waaye également ci wàllu gouvernance les responsabilités seront situées et les coupables paieront leurs dettes noonu la ko les échos xamale na ko koor concentre-toi xam xam xam xam xam concentre-toi ah d'accord d'accord controverse autour des premiers mois de gestion du tandem Diomaye Sonko mu ne professeur Diouf <laughs> euh, nee na Ngoné ak Aram nañ dëgg bal bi balaa teer mu ne nañ ko calmer jeu bi ci suuf yaa ngi dégg. Mhm. mu ne euh, comme moo nekkoon invité émission euh, objection ci bu Sud FM professeur d'histoire ca Columbia University bi dafa démarqué wu. mu ne ba pare jugé na ni dafa teel c'est prématuré la pluie de critiques bi nga xam ne jamono bi moo am ci nouveau régime bu bees bi amateurisme confusion. mu ne on commet dans le cadre de la gouvernance des affaires du pays fu mu nekk nii nañu def ndànk teel na lool teel na lool pour que critiques yi fu ne mun fay jóge ci diggante Diomaye ak Sonko Sonko moo jël place su Diomaye ak ak yeneen yi ci topp l'info mu ne stabilisation bu calendrier universitaire cette mesure yoo xamante ne tutelle bi jël na ko impact financier règlement année universitaire bi estimé nañu ko à plus de 40 milliards de nos francs et orientation yuy débuté le 19 septembre incha allah mhm. euh, te dinañ ko clôturer également le 15 octobre bachelier wu at mi daañu mën a inscrire wu dès le 21 octobre 2024 liiru avancé beneen bi mooy un délai de 16 mois nécessaire pour ñu mën a stabiliser définitivement li nga xam ne mooy année académique bi étudiants wu 2022 2023 daañu commencer dès le 1er juillet bi ak ceux de 2023 2024 daañu tàmbali au plus tard le 25 février 2025 mu ne recrutement de 1500 enseignants chercheurs ak personnel administratif ak technique yéen a kaay info dinu ko xamal waaye euh, achever rapidement les projets d'infrastructure en cours encourager collaboration avec les établissements privés pour ñu mën a diversifier les opportunités d'études supérieures voilà donc les sept mesures ginnaaw la foo ñu ñëw ci sport léegi Sénégal RDC réaménagement tactique moom la ñuy def fu mu nekk nii naka la ñuy def ba absence su Crépin ak absence su Jacob ñu bañ koo sentir c'est simple je vous donne la solution jël leen man Ousmane Cissé mu remplacer Jacobs est-ce que duñ jël mi ngi maram mu gënal. kan mi ngi maram Ndiaye. doo ñu boole ñun ñaar ba pare. mi ngi maram gis naa ko muy jour. bu de. au mi ngi mi ngi. maram de dafa bëgg wax ne mënoo football. gisuma ko. xam nga te moom waroon naa am gàcce sax ndax daa dem ba ex. ndax mi ngi ma fa wili pande mu fekk fa ñu ko xamal ne ko xam nga mi ngi xalal. loolu tamit dafa am solo ci équipe. Mhm. boo ah, boo jëlalee koo xam ne fin de carrière la wala jeexal na sax. oh Pa Pa Ousmane de oh. dafa jeexal. man damay soog a tàmbali. kon say nuxu oom danoo jeex <laughs> le liquide de tes genoux est fini <laughs> il reste quoi il reste un peu de ñeex <laughs> ou c'est complètement damay laaj ndax sa le liquide de tes genoux sooy ndoxu oom dafa jeex wala ah wa ah Cissé dama fu mu nekk di loolu daal la tal moom lay xool nii toog ñoo ko fa nekk di ko fay weer du dëgg léegi te équipe nationale bi ñoo ko moom jëluñu la ah <laughs> dañ laa jël c'est tout lii tamit on parle de coupe du monde qualification jël coupe d'Afrique et on parle de performance de joueurs capables de faire la différence. est-ce que doo continuer ñu dem ci Mbappé. man ci nga bàyyi yaakaar naa ma fu jàll Real mi sax wane na ko. waaw kii Ligue des champions quinzième sacré record. Ah Real attend Mbappé ah et vise également une seizième. waaw loolu neexul lu tax du ngeen ci commentaire yéen ñi faralul Real. <laughs> naa seen xol yi dina yàgg metti nag léegi nañ dem ca làmb dem naa ca làmb jë ci altine gi vainqueur bu Jackson Junior démb Lac Rose moo renoué encore une fois avec la victoire 11 ans après ndeysaan c'était émouvant ndeysaan moo ko daan moo ko daan jëlal daan bi lii nag mooy dëppatal dëppatal ay lii mooy dëppatal noonu la ko def ah xool leen lii lii dëpp dë dëpp bi dëpp bi mooy tëdd bi potel bi mooy action bi. très bien. jële bii. bii nag moo gën a doy waat Pape Ndoye surpris en une minute vingt caatu daw da mu ne cey xale bi xoolal daal bi jële ñaar yi jële yel yi yel yel ca kaw. waaw ñoom photo bii rek la ñu mën de. xam naa faraluñu ki ñu daan de. bii de bii de xanaa bii de xanaa mooy tungoom lii. lii de mënoon na gën a rafetlu lii kay waxuma la seen ngeen bi dañ koy takk ba mu dëgër sinon kaa dina am de. man na kaay ma wax la Pape Ousmane arab ngoone nabu làmb ji man bokk ma ci de dem naa de. ah da nga bàyyi. dem naa bàyyi bu suba. jërëjëf jërëjëf euh, Adjaratou euh, moom ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax alors euh, le temps que maman di taxaw fee ci écran bi ñu daal di dalal.